Né en 1904, Abdulaziz Sy, appelé affectueusement Dabar, a su marquer son empreinte à travers le Sénégal. Fils d'Elhadji et de Sokhna Safiétou Niang, était l'un des rares chefs religieux à obtenir un leadership moral aussi reconnu dans toutes les sphères sociales. au paroxysme des crises sociopolitiques, seule sa voix était écoutée par tous les protagonistes. Engagé, il n'a laissé aucun Sénégalais indifférent tout au long de son sage magistère. Il a toujours été considéré comme une aiguille qui raccommode les déchirures sociales et familiales. Successeur de son frère Khalifa Ababakar Sy, il a fait ses brillantes études auprès de Cheikh Ali Touré à Fès. Afin de parfaire sa culture islamique et la maîtrise de la langue arabe, il a fréquenté durant sa jeunesse plusieurs centres d'excellence, particulièrement dans le Cayor. Doté d'une solide formation à l'âge de 26 ans, il s'installa à Saint-Louis chez l'un des tuteurs du nom de Birarim Diop pendant sept ans. Humble, courtois, discret et altruiste, Abdulaziz Sy est un fervent défenseur de la coopération arabo-africaine. Il a su tisser un faisceau de relations durables durant les pays de la Oumma islamique, surtout au Maroc et en Arabie saoudite. Bénéficiant d'une aura inégalée de son vivant, il s'est toujours considéré simple, modeste, parmi ceux qui ont vénéré son père, Elhaj Maliksi, et le prophète, paix salut sur lui. aw nañu. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye waaye ku dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu fa liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen tee. Allah. allahumma salli ala sayyidina. Allah allahumma salli. allahumma salli ala. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا لا اله اللهم صل